الله أكبر الله أكبر
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين mbokk jullit yi jamono ji ñuy dund jamono la joo xam ne dafa ràññeekoo benn mbir mu nekk mbir mu doy waar boo xamante ni boo jàngatee diine ak ni mu melalee doxuk àdduna ak nekk ñu nit ñi ci kaw suuf euh, du la bett dina la bett du la bett wala dina la metti waaye du la bett lool ndax dina nga gis di nga gis lu la junjaloon soppi ko nit ñi seen nekkin ak yàqute gi nga xam ne mooy am ci kaw suuf ni muy yokkoo ci nit ñi am na ay sabab yu koy waral sabab yooyu mën nga wax ne yi ci gën a ràññeeku bokk na ci ñàkk xam réer ñàkk xam ñàkk xam nekk na lu feeñ lool lool lool ci nit ñi ci jamono yu mujj yi nga xamante ni ñu ngi ciy dund suñ société yaatu na dem geeg dikk bi bari na nouvelle technologie yi lu ne mi ngi am waaye nit ñi xam-xam bu tax ñuy wax xam-xam mi ngi gën di wàññeeku ci ñoom bu ko defee ak réer ak ñàkk xam nekk ci ñoom ci ay façon yu bari réer yooyu bokk na ci réere dëgg-dëgg xaqiqatu dund bi ñuy dund muy alxayaatu dunya lan mooy mbiram kan moo ñu fi indi lan moo tax mu indi ñu fi naka lañ mën a def ba réussir mission bi tax ñu ñëw fii li ëpp ci ñuy dund tey ci kaw suuf xamuñu loolu moo tax ci yeneen lañ nekk yu safaanoo ak xam-xam boobu waaye réere tamit ki nga xamante ni dëgg-dëgg moo ñu sàkk indi ñu fi buur boobu ak borom boobu mooy kan ak lan mooy cëram ak lan mooy gëddam ci jaam yi lan mooy àqam ci jaam yi ñu bari ci nit ñi dañ koo réere xamuñu loolu nekkuñ ci li nga xamante ni moom la ñu wàcceel muy lumière bi mu ñu wàcceel mu jóge ci asamaan ñëw war ñoo niital ba suñu dund nekk lu leer fi ci kaw suuf itam li ëpp tey ci kaw nii dund ci kaw àdduna di dund ci kaw suuf dañoo réere njub googu réere xam-xam boobu nekkul ci ñoom bu ko defee ñu nekk ci ay lëndëm lëndëm yoo xam ni dañuy féetante kaw ba lëndëm kurus nit ñi dañ cee ëppalante waaye li ëpp ci nit ñi ci loolu lañ nekk loolu moo tax boo seetloo li ëpp ci ñoom da nga leen di fekk ñu nekk ci lëndëm googu di tañax tañaxi nekk ci ay ñaawteef ak ay mbonte di wëlbatiku buñ jógee ci bii dem ci bële ci loolu la ñu bari ci ñi nekk ci kaw suuf ñi tey ci loolu la ñu nekk ci loolu la ñuy dund moo tax suñu borom subhanahu wa taala ne ndax moo gisuloo koo xam ni dafa faatu woon yàlla dekkal ko daal di koy jox leer goo xam ne da ciy mën a dox ci kaw ci kaw suuf di dox ci kaw nit ñi loolu li muy tekki mooy ñaari nit ñoo fi nekk ki yor leer ak ki yorul leer ki yor leer leer gi mënu koo jële dul ci borom bi subhanahu wa taala wa man lam yaj'al illaahu lahu nuuran fa maa lahu min nuur ku yàlla joxul leer amul leer leer gi nga xamante ni moom la nit ki mën a niitee ba tax mu tegu ci njub dund dund goo xamante ni dund gu yëwan la leer googu ci asamaan lay jóge si suñu borom rek lay jóge ak keneen koo xamante ne yorul yorul leer googu moo tax mu ne ndax ki nga xam ne yàlla jox na ko leer googu yam na ak koo xamante ni dafa nekk ci lëndëm lëndëm yooyu te mënu caa jóge nga gis ne doo gis ci melokaan yi nga xam ne doomu aadama yi dañ leen koy melal melokaan bu gën a bon gën a ñaaw gën a doye di réer muy ñàkk xam ci boppam réer amul lu gën a mën a dimbali seytaane ci nit ñi ba mu yomb ci moom lool mu réeral leen sànq leen melokaanu réer ci melokaan yi nit ñi melowoo amu ci melokaan bu gën a mën a dimbali seytaane ci nit ñi ba mu mën leen a réeral sànq leen melokaan bu mel ne réer ndax ki réer noonu boppam la xamul lu baax ci moom xamul lu baax ci moom lu ko neex rek la xam waaye xamul lu baax ci moom dafay jug di song loo xam ne alkaandeem moo ca nekk pertangeem moo ca nekk ba noppi yaakaar ni moom ci lu baax a baax la ne la jëm moo tax suñu borom ne woon ndax duma la xamal koo xamante ni bi moom mooy ki gën a yàqu ay jëf gën a sànku ay jëf ci nit ñi te yaakaar na ni moom la muy def lu baax la loo xamante ni ma ngay rafetal ay jëfam loolu am na ci doomu aadama yi ñoo xamante ni loolu mooy seen melokaan lan moo leen ci yóbbu réer ñàkk xam moo tax Ali ibn Abi Talib bi ko xawaari ji sonalee mu daan jàng aaya boobu qul hal nunabbi'ukum bil axsarina amala alladina dalla saayuhum fi lxayaati dunia wa hum yaxsabuna annahum sun yuxsinuna sunaa li ko waraloon mooy seen ñàkk xam ànd ak xër xër lool nag xër lool waaye ñàkk xam mbaax ñàkk xam njub taxoon ñu sànku réer mu ne seen réer seen seen lu baax loolu ñuy ut ak kër kër jooju ñu nekk lépp dafay sànk loolu la loolu tax mu daan jàng aaya boobu di ko jëmale ci ñoom kon loolu tey bëri na loolu ci nit ñi yonent bi alayhi salaatu salaam melal li nga xam ne mooy réer ne feebar la feebar boo xam ni ki da ko war a faj xam nga feebar bu nekkee ci nit rek li muy tekki mooy fonctionnement wu yaramam dootul normal ndax loolu lañ tudd ci almarad mooy al illa mooy sabab la boo xamante ne yuxriju al jisma an xaddil ictidaal an ictidaalihi naka noonu tamit feebar bi feebaru xol la muy feebaru réer ci feebar yi gën a mën a jàpp xol lëndëmal ko ba xol ba du tegu ci njub réer bokk na ci moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam ba ñooñ a ubbee saxaabi yi ba nga xam ne moo gaañu woon ci bopp te yeewu woon am janaaba bëgg a tiim ñu ne ko doo tiim laa naraa la ko ruxsa fi tayammum ixtasil ñu digal ko ne ko na sangu mu sangu ndox mi dugg ci bopp bi loolu daal di koy faat bi ñëwee wax ko yonente bi alayhi salatu wasalam daf ne qataluhu qatalahum allah ala sa'alu xiina jahilu wala xiina lam ya'lamu fa innama shifaau l ayyi assual mu tuddee ko shifa cheikh lislaam nee na baatu shifa bi yonente bi alayhi salatu wasalam jëfandikoo ci ñàkk a xam al ayyi mooy al jahl liy faj liy saafara réer liy saafara ñàkk xam mu ne mooy nga laajte mu ne loolu day wane ne kon jëmmi ñàkk xam feebar la bu ñu war a faj feebar la boo xam ne bu nekkee ci nit ki dafa war a góorgóorlu ci faj ko muy am loraange yu bari yoo xam ne boo ko seetloo ñàkk xam gi nga xam ne mooy ñàkk xam njub ak leer gi jóge ci yàlla subhaanahu wa taala yàlla wax doomu aadama yi ne leen yaa ayuha nnaas qad jaakum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaykum nuuran mubinan indil naa leen firnde bu leer bu jóge ci seen borom wàcc jóge seen borom yàlla jox leen leer goo xam ne leer gu leer nàññ la waaye nit ñi xamuñu nañ ko niñ ko xamuñu ko niñ ko war a xamee ngir mën cee jariñu ay sabab yu bari nag waral ñàkk xam bi loolu beneen waxtaan la waaye li ñuy xool mooy ñàkk xam googu bu nekkee ci nit ki li mu koy jural ci ay loraangeem ay loraangeem dañ ciy junj rek waaye kenn mënu koo lim boo xoolee da ngay gis ne jëmmi ñàkk xam ci boppam melokaan bu ñaaw la boo xam nit ku nekk war na koo bañal boppam war naa jombul boppam ñu boole ko minal jaahiliin ñu boole ko ci ñi nga xamante ni xamuñu ndax ñi xamul lépp lu nit di def ci rek ci jëf joo xamante ni jëf ju yellul la dañ naan kii xamul ku ñàkk xam la ku xamadi la loolu moo tax kon nit ki war a góorgóorlu def kémtalay kàttanam ba bañ ko moo tax suñu borom subhanahu wa taala doon wax ci nit ñi nga xam ni dañoo wan ginnaaw dëgg mu ne dañoo xamul bal aktharuhum laa yaalamuuna alxaqa fa hum muridun nga gis ne rabt la bayna al fi'l wa illatihi dafay lëkkale jëf ju nit di def ak la waral ci moom moo koy def mu ne li waral ci ñoom ñu def i'raad wan ginnaaw dëgg bu ñu leen ciy woo ñu lànk bañ koo topp nee na laa yaalama ñàkk a xam aljahl moo leen yóbbu ci loolu mu des lan mooy sabab nag lan moo waral ñàkk a xam boobu mu bokkaat ci ba léegi moo ne boo gisee li gën a mën a tàbbal nit ñi ci bokkaale bokkaale yàlla ci ay cëram ci ay sañ-sañam ci ay àqam nit ki jël ko di ko jox mbindeef moo xam ne yàlla moo ko sàkk lu mu am yàllaa ko ko defal jeex la mooy sabab bi gën a mag bu yóbbu nit ñi ci loolu ñàkk xam saa boo gisee nit muy bokkaale ak yàlla rek xamal ne xamul nit ku xam yàlla du ko bokkaale kon jeex la gi nekk ci nit ñi mooy gën a favoriser ñuy gaaw lool di tàbbi ci bokkaale ndax xamuñu yàlla xamuñu dayoo yàlla xamuñu màggaayu yàlla xamuñu cëru yàlla xamuñu àqu yàlla boo réeree loolu yépp nag li nga dégg mu rëy ci sa ci say nopp wala ci sa ci sa ci sa ci sa xol rek loolu ngay jël la nga waroon jox yàlla nga jël ko jox ko bu ko defee seytaane tàbbal leen ci li nga xamante ni mooy shirk te loolu Abdullah ibn Abbas wax na ci wax ju am solo bi muy tafsir wax ji yàlla subhanahu wa taala wax ne kaana annaasu ummatan waxidan fa baasa allahu nabiyina mundirina wa mubashirin wa anzala maahum alkitaba bilxaq bi yàlla subhanahu wa taala wàccee aadama diggante aadama ak yonent yàlla nuux lu mat dix siècle moo fi dox ñoom ñëpp ci wéetal yàlla lañ nekkoon waaye bi ñu ñëwee ba ci jëma yonentu yàlla noox seytaane dafa ñëw nax nit ñooña doon dund ba def loo leen loo xam da caa ubbee buntu bokkaale waaye ñooña mënu leen ca woon bokkaale loo dafa xaar ba nit ñooña dem la ñu xamoon ñi mujjee ñëw xamuñu ko moo tax mu ne wa tunuusiya al ilm wa tunuusiya al ilm isharatun ila jahlihim abdullah ibn abbas junj wan ne seytaane bi mu ñëwee di ndax génération yi nga xam ne ñoom la bokkaale loo ci statut yooyu nga xam ne seen imaam tabaxoon nañ ko daa fekk ne xam-xam newatul ci ñoom mu jëfandikoo jaxl boobu muy ñàkk xam googu daal di leen tromper ne leen yii seen maam yi tabaxoon fi dañ ko tabaxoon ngir di leen ñaan aka julleel aka ñëw di raay ñu tàmbali di ko def ndax jaxl moo nekk ci ñoom muy ñàkk xam moo nekk ci ñoom loolu junj bu sew la bu abdullah ibn abbas def boo xam day wane ne bu bu ñàkk xam nekkee ci nit rek bokk na seytaane jekku yu mu koy jekku ngir yàq ko ak détruire ko yàqal ko diineem ci ñàkk a màggal yàlla ci xolam lay la la ko seytaane di dikkee jël yeneen feesal ko ci xol bi bu ko defee bokkaale nekk lu yomb ci moom lool mu bokkaat ci tamit ba léegi bu ñàkk xam boobu nekkee ci nit mooy du xam kan mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam way yi bëri na neex na lool tant yi yaatu na lool waaye xaqiqatu rasulillah dëgg-dëgg mooy kan alayhi salaatu wasalaam ak lan la ko yàlla joxoon ci njub ak ban xam-xam la jàngale bàyyi ko fi ak lan la ci digal xeetam ak lan moo ci war a nekk suñu taxawaay lépp ci nit ñi xamuñu ko ndax seen diine ñu ngi koy jëlee ci moom di ko jàngee ci moom defuñu ko ndax xamuñu ko te dégguñu ko itam ñu leen koy wax kon xamuñu ko dëgg-dëgg ba tax taxawaay bi ñu war a mën a am suñ digganteeg moom ci roy ko duñ ko def kon ñu réere ko réere mbiram léegi nag bu dee da nga naan ashhadu an laa ilaha illa allah di wax ne ashhadu anna muhammadan rasulullah tax nga nekk jullit alayhi salaatu wasalaam seedeel yàlla ak wéet te xamuloo kuy yàlla xamuloo nu ñuy wéetalee yàlla xamuloo lan mooy wéetal yàlla ci lan la ñuy wéetal yàlla xamuloo ko doo wéetal yàlla ngay seede ne yonent yàlla bi alayhi salaam yàllaa ko yebal te xamuloo lan mooy risaala message bi ko yàlla jox nga gëm ne indi na ko dëggal naa ko te xamuloo loolu lan la ci loo koy dëggal ci lan nga koy roy alayhi salaatu wasalaam loolu mooy melokaanul ëpp tey ci jullitu tey ci àdduna nasalullah salaamatu alaafiya réere itam diine ji nga xam ne moom la ñëw jàngale ko attey diine attey lislaam ba ci jaamu yàlla yi ñuy def lu bari ci jullit ñi xamuñu ko tañeex tañeexi rek da ngay dem ci jàkka yi fekk fa imaam ba fa jiite sax muy jullee noo xam ni sa yaram da ngay bëgg a jël say dàll génnaat jàkka ji te moom la ñuy jiital naan ko imaam mu sol garaam bu bam di xoggaliku ndax njàng mu tax ñuy wax ne wootu fi nit ñi jànguñu seen diine xam ko nañ ko war a xamee kon bu fekkente ni diine ji nga xam ne moom la ñu war a diine woo ñuy woowee ay jullit jëlatuñu coono bi ñu waroon def ngir jàng ko jàngal ko njaboot gi jàngalante ko ba nit ñi xam ko am ci lu leen leer xàmmeewuñu luy diine ak lu dul diine lu bokk ci diine lu bokkul ci diine xamuñu ko fan la frontière bi yam entre diine ak aada diine ak mbaax wala yooyu xamuñu ko loolu moo tax da ngay gis ne ki xamul réer da koy yomb sànku da koy yomb ndax diine ci boppam la xamul luy diine ak lu dul diine da nga koy wax sax ne ko mbir mi baaxul xaram na mënu mënu la dégg ne li ngay wax nii lu xaram la ndax lu mu xam rek mooy lu mu tàmm gis nit ñi di ko def lu ko neex lu mu bëgg yooyu la xam da ngay gis ku dem ci njabarkat nga ne ko yow ab jullit buy dem ci njabarkat lislaam dafa araamal njabar sikki sàkk ci lislaam amul ne njabar bokkaaleel dafa xaram mu naan la kii xam-xam yàllaa ko may xam-xam dafa xam lan moo tax tey njabar tas ci suñu réew yi mooy jullit ñi fi nekk seenuk ñàkk xam àgg na ci ba léegi mënuñoo xam ne njabar googu lu safaanoog lislaam la lu yàq seen diine la ci bokkaale la leen di yóbbu ba léegi loolu mënul dugg seen i nopp nga gis ne itam loolu nga xamante ni moom ngay seetlu ci ñàkk xam diine jooju lu mu lu mu waral toppandoo ak tañax tañaxi ak yu mel noonu fépp fu poussière ba jug fépp fu ngumbaay ma nekk ak yooyu nit ki daw wuyu ji loolu fépp fu waxkat di wax neex la na muy waxee na muy doxaleeg ya muy wane neex la nga dem dé déglu ju ko topp ju ko ndax am nga ay nattuwaay yu wér yoo xamante ni ci ngay nattee li muy wax ndax dëgg la am déet déedéet nekkul ci nit ñi ndax min sharafil ilmi annahu laa yulamu illa bihi xam-xam ci xam-xam rek lañ ko mën a natt nit ki benn baasu xam-xam nekkul ci moom pour mu natt xam-xam ci li muy dégg ndax wér na wala wérul dina jafe moo tax kon li ëpp ci nit ñi ay altoppe lañ yoo xam ni la ñuy topp mënuñoo leeral la cay dëgg ak la ca dul dëgg ndax xam-xam bu nekk ci ñoom bu leen may ñu leeral ko newul ci ñoom kon mbir yaa ma neex rek la ak mbiru toppaate te loolu ci la ñàkk a xam di yóbbu nit moo tax kon ñàkk a xam dafay gaaw a waral ci nit ki topp loo xamante ni lu baax gis nga Moussa alayhi salaam bi mu jéggee ak banu Israël xotti géej gi dem ci beneen riif bi. jóge misra dem ci beneen riif bi nga xamante ni moom moo jëm ak ñoom Cham dañoo romb ay nit yoo xamante ni dañoo yoroon ay bokkaale ay xërëm di fa toog di ko jaamu di ko ñaan fekk boobu defal na banu Israil kéemtaan gu rëy gu toll noonu nga xam ne ci yàlla la jóge ñu nekkoon ci njàqare mu rëccal leen ci firawna loolu waroon delloo seen xel ci yàlla waaye ñàkk xam gi nekk ci ñoom dafa waral bi ñu gisee ñooñu di def bokkaale googu loolu daal di leen di neex ñu daal di ne Moussa ij'al lana ilahan kama lahum aliha defal ñu yàlla jumel na ñoom yàlla yi ñu yor Moussa ne leen yéen ñu ñàkk xam ngeen ñu réer ngeen innakum qawmun tajhaluun la Moussa wax tajhaluun ñàkk xam moo leen jàpp ba tax ngeen may wax li ngeen may wax nii ndax ñii ñi li ñu nekk ni sànkute la li ñu nekk ni baatil la neen la bu ngeen koy xemmeem ba koy bëgg di ci bëgg a dem c'est parce que da ngeen a ñàkk xam ñàkk xam nag loolu lay waral toppandoo ci loo xam ni mbaax newu ca ak topp loo xamante ni njub ak dëgg newu ca loolu moom loolu moom lay jur ba mu leen waxee itam ne leen yàlla digal na leen ngeen rey nag wa ngir kooku ñu faatoon ci seen biir yàlla lijjanti leen kan moo ko rey dañoo tàmbale ñëw naan ko atattaxiduna huzuwan ndax da nga ñuy fowe ndax da ngay fo daf ne aoudu billahi an akuna min aljahilin maa ngi mustu ci yàlla mu boole ma ci ñi réer ñi nga xam ne xamuñu loolu mooy seen comportement bi ngeen am ci wàllu li ma leen di wax ci dëgg ak diine ba tax mënoo leen koo def ni ma leen koy sante ngeen déggee ko ni ma leen koy waxee mooy réer moo nekk ci yéen da ngeen a xamul luut bi muy wax ak xeetam naan leen yéen ñaawte fu rëy rëy rëy ngeen di indi da ngeen di dem di sàkku ay góor bàyyi fi ay jigéen yéen de seen lii ngeen di def réer moom moo leen ci yóbbu réer moo leen ci yóbbu mooy bu ngeen xamoon bonte ak ñaawteefu dëgg-dëgg li ngeen di def ak conséquences yi mu leen di jural fii ci àdduna ak bu ëllëgee du ngeen ko def loolu moo tax bu njëkkoon as salaf daan wax ne képp ku def bàkkaar rek ci kaw réer nga ko defee bu feesoon dell ak xam-xam sax bu defee bàkkaar ci kaw réer la ko defee annahu man amila minkum suu'an bi jahalatin la yàlla wax bi jahala boobu nekkul wa wasf boo xamante ni dañuy wax ne charte la boo xamante ni day nekk ne nit ki daa def lu ñaaw daa def bàkkaar fekk ne xamul ndax ñàkk xam day nekk sabab ci yàlla ngàntal la ba bàkkaar ba nga def yàlla du la ko toppee waaye bi jahaala fii kenn namm ci loolu liñ ci namm mooy ne wasf la boo xamante ni mulazim la li hada al fi'l mooy ne képp ku def kullu man amila suu fa huwa jahil xiina fi'lihi wa xiina mubasharatihi wa iqtirafihi li suu képp ku def ñaawteef rek ak lu mu am am xam-xam ak lu mu xam-xam ne lii muy def lu bon la xamul ndax bu xamoon dëgg-dëgg du ko def loolu moo tax ci li ñëw ci kanam dinañ gis ne yàlla subhaanahu wa taala dafa melal ñi nga xam ne ñoo ko ragal ne ñoom ñooy ñi xam mu bokkaat ci itam ba léegi mooy ne ñàkk xam bu nekkee ci nit day gis loo xam ne ay attey yàlla yu leer la mu bàyyi ko fi naan aada naan baax lii la ñu xam lii la ñu gis lii la ñu nàngam ginnaaw bu mu ko leeralee dëgg ne li dëgg la bu jóge ci yàlla ñu koy jàngal aaya yàlla yi di ko jàngal xadiis yonentu bi alayhi salaam mu leer nekk ne dëgg la ju wér ci tekkin ak piriwin bu wér nit ki bàyyi ko fi di wax waxi aada loolu bokk na ci lu koy waral ñàkk xam mu bokkaat ci tamit ak ëppal gu muy def ci nit bokk na ci li gën a jafe ci ku xamul am diggi doomu diggi doomu ci ku xamul daanaka xawul mën a nekk bu réer nekkee ci nit ki boole ko xër ak bëgg ne dafa bëgg diine wala dafa bëgg lu baax li ci ëpp du yam fañ ko war a yamloo moo tax yàlla subhanahu wa taala prévenir oon banu Israil ne leen bu leen jéggi dayoo ci seen diine ba àgg ci loo xamante ne yàlla santu leen ko te loolu yàlla junj na la koy waral wala tattabiu ahwaa qawmin qad dallu min qabl wa adallu kathiran wa dallu an sawaai sabil yàlla junj na liy faral di waral loolu mooy ne ñooñu muy mettre en garde leen mooy tundikuloo ëppal xamal na leen ne seen ëppal gi li leen koy yóbbul mooy da ngeen a xamul ña leen war a xamal ñoom ñoo leen di puux di leen jañ ci loo xamante ne daf leen di yóbbu ci ëppal mu bokkaat ci tamit ba léegi mooy gaaw a mën a tàbbi ci pexe yi noon noon bi nga xamante ni yàq lislaam la bëgg yàq diine ji la bëgg dox diggante jullit ñi ak ñu jëfe seen diine la bëgg noon boobu li ko gën a mën a dimbali ba mu réussir programme am boobu ak mission boobu ci nit ñi mooy ñàkk a xam nekk ci nit ñi bu ñàkk a xam nekkee ci nit ñi rek mu ñëw daal di lëndamal xel yi jaxase yëf yi ba nit ñi seen diine jaxasoo ci ñoom ñu dem topp ay mbir yoo xamante ni réer moom moo ca nekk. mu bokkaat ci tamit mooy sànq doomu aadama yi sànkute nu mu yombee léegi ak sànkaate nu mu yombee ndax nit ñi daa mel na ñooy lay dimbali ci kaw nga sànq leen ndax ñàkk xam gi nekk ci ñoom làmbatu bu bari gi nekk ci ñoom loolu moom moo waral ku ne la ñuy ubbi seen nopp di ko ko tàllal bu ko defee réer nekk lu yomb ci ñoom loolu te itam nit ñi ñeme yàlla ñeme yàlla gu toll ne dañuy wax ci yàlla di wax ci diine yàlla ji loo xam ne du dëgg di ci sànq ay junni junni doomu aadama ngir seeni propre intérêt kenn xamul nu mu toll tey ci kaw suuf léegi bu fekkente ni nag ñi xamul dañoo bari tey làmbatu tañax tañaxi ñi sànq itam ne fi am fit lool ñeme yàlla lool kon faw réer bari ndax ñaar ñooñu fu ñu daje rek réer bari fa moom la yonente bi alayhi salatu wasallam waxoon ne ci mujj jamono bu yàlla da yëkkati xam-xam du ko rocc ci dënnu nit ñi dafay faat borom xam-xam yi bu ko defee nit ñi jiital ñu xamul di leen déglu ñu sànku di leen sànk nasalullah salaamata al aafiya nga gis ne ci ngëneelu yàlla subhanahu wa taala daf caa bokk ci ne yàlla du wàcce benn feebar du dul wàccel na ko lu koy saafara bu fi réer nekkee itam yàlla ubbil nañu bunt yoo xam ne suñ ci jaaree biidnillahi taala dinañ mucc ci réer ak ci loraange li nga xamante ni moom mooy réer buntu yooyu lu bari la waaye dañuy junj rek yenn aaya yoo xam ne buñ ko jàngee dinañ gis liñ ci yàlla junj ci am njàngale moo xam ne buñ ci tënkoo dinañ mucc ci réer bi idnillahi taala mu bokk ci yooyu mooy yëkkati gi yàlla yëkkati xam-xam ak wane ne xam-xam mooy yóbbu nit ci mu ragal yàlla xam-xam mooy yóbbu nit ci mu nekk jaamub yàlla bu fonk yàlla wekk yàlla di jaamu yàlla mu ne innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama mu def ko jëfandikoo adaatu xasr ñi nga xam ne képp ñoom képp ñooy ragal yàlla ci jaam ñi mooy ñi xam mooy ñi xam-xam nekk ci ñoom ñi nga xam ne melokaanu réer nekkul ci ñoom ñooñu ñooy ñi ragal yàlla ndax ñoom la yàlla màgg ci seen xol ñoom ñoo xam yàlla xam dayoob yàlla subhanahu wa taala ba tax ñu koy ragal kon loolu war a tax nit ku nekk góorgóorlu ba melokaanu ilm di xam-xam ci li ngay def waxuñu sax géeju ndax ñépp mënuñu géeju ci xam-xam waaye am xam-xam ci li ngay def ba li ngay def nga teg ko ci xam-xam kenn ku nekk war na cee góorgóorlu ngir mu dugg ci melokaan boobu yàlla melal ci aaya boobu beneen bi ci des mooy yàlla waxaat ji mu waxaat nit ñi jullit ñi ne leen fekk mi ngi wax ak yonente bi alayhi salatu wasalam di jaare ci moom di wax ak jullit ñépp ne ko wala taqfu ma laysa laka bihi ilm laa taqfu imma laa tattabi aw laa taqul bul wax wala bul def loo xamante ni amaloo ko xam-xam mu jëfandikoo baatu ilm ma laysa laka bihi ilm mooy loo xam ne amaloo ko xam-xam dañuy wax ne al ilmu ma qaama bihi dalil yenn ci borom dañ koy tekki di wax ne al ilmu maarifatul xaqi bi dalilihi xam-xam mooy nga xam dëgg xamal ko tegtalam xamal xam dëgg xamal ko tegtalam du xam dëgg parce que diw moo ca ne wala diw moo ko wax wala mbooloo mu bari maa ca nekk déedéet loolu mooy xam-xam mu ne bul topp loo xam ne amaloo ko xam-xam loo mënta tudde xam-xam bul ko topp léegi nag nit ñi lan la ñuy topp tey ci kaw suuf buñ jëfe woon lii ñu yàlla sant ci alquran wallahi ñu bari ci ñun dinañ mucc ci réer waaye li garaaw mooy ñu koy dégg ñu koy jàng ci àdduna ñuy gën di nuur ci ci réer bu ñu deewee dekk ci kanam suñu borom mu ne amoo leen ngant amoo leen ngant ndax moom yàlla subhanahu wa taala wàcce woon na ci ñun téere boo xam ni waxoon nañu ci benn aaya rek boo xam ni tax na ngant suñu diggante suñu borom jeex na mooy waxoon nañu ne bu leen topp lu ngeen amalul xam-xam léegi ndax nit ñi ñi ngi jëfe aaya bi yàlla subhanahu wa taala wax na beneen bi ci des mooy li mu waxaat ba léegi moom borom bi subhanahu wa taala ne yéen ñi gëm yàlla yaa ayuha alladina amanu in jaakum fasiqun bi nabain fa tabayyanu bu leen koo xam ne xamoo leen ak maandu teem te ak a bëri lool tey ci kaw suuf ku ngeen xamul ak maandu teem indilee ab xabaar wax leen dara rawatina lu gën a te doy waar mooy loo xam ci seen diine la jëm même bu dee ci àdduna gëstu leen ko balaa ngeen di am benn taxawaay waaye rawatina boo dee ci seen diine la jëm tey ñiy toog di wax te li ñuy wax teguñu ko ci ragal yàlla teguñu ko ci xam-xam ci seen i bëgg-bëgg ak ci propagande ak seen i intérêt lañ ko teg ci turu diine kenn xamul nu mu toll te ci ñoom la li ëpp ci nit ñi di sànkoo waaye nit ñi wóolu nañ leen wóolu boo xam ni dañ leen di déglu jox leen seen i nopp jox leen seen i xol loolu ñuy déggee ci ñoom nekk luy gàllankoor seen topp dëgg ba nit ñi mënuñu topp dëgg ndax wóolu gi ñu wóolu ñooñu wóolu wuñ ko ñi leen di wax li jóge ci yàlla loolu mooy principal problème bi bu mujj bi mooy li yàlla subhanahu wa taala wax ne fasalu ahla dicri in kuntum la taalamun dafa am taqdim ak ak taaxir mooy in kuntum la taalamun fasalu ahla dicre bu ngeen xamulee bu ñàkk xam nekk nekkee ci yéen imma umuman aw xusuusan mooy nit ki d'une manière générale nekkul boroom xam-xam na laaj diineem ñi nga xam ne ñoo xam mu jëfandikoo ahlu dikr mooy ahlul ilmi ahlul kitaabi wa sunna ñi nga xamante ni ñoom la yàlla subhanahu wa taala jox xam-xamu alquran ak sunna laaj leen leen mu jëfandikoo baatu su'aal bi yonent bi waxoon ne innama sifa shifaul ayyi su'aal laaj leen ñi xam bu ngeen xamulee wala même boo xamee sa diine itam am lu ca lënt ci yow benn tomb kon laa taalam mu ne la na nga laaj ñi nga xamante ne ñoom ñoo xam bu nit ki doon jëfe tamit principe boobu insha allahu taala dina mucc ci réer mucc ci loraa ngay réer waaye tamit li ñuy wax mooy li ñu waxoon léegi ci xadiisu abdullah ibn amr ibn al-aas mooy nit ñi dañ dul dellu ci delluwaayu xam-xam mooy buñ buñ bëggoon a jëfe tey aaya bi ci laaj ki xam ngir teggi ñàkk xam ci ñun dañuy dem làmbatu foo xamante ni xam-xam bu ñuy teggil réer newu fa ñu ne dañuy jële foofu loolu moom mooy liy waral tey boo jàngatee li ëpp ci doomu aadama yi ci kaw suuf nekk ci réer rawatina ci seen mbiru diine ak seen mbiru borom nasalullah salaamata al aafiya rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasana wa qina adaba annar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم وفقنا لهداك واجعل أملنا في رضاك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك وفضلك اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله